صحبت لي رب البرية البدن أزال أغاد من خلوني بددا صحبت لي رب البرية البدن أزال aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bàyyi xel Istikhama TV ci kàddu gi seen mbokkum taalibe Mor Talla Kane la ndongal Touba ci wàllu caméra ñu jàkkaarloog Serigne Abdou Bakhy Dia di jaajëfal baax a baax Serigne Moustapha Ndiaye di santaat mbokki taalibe yi nga xam ne ñi ngi ñu ñuy bàyyi xel jamono ju nekk mbokk yi xam ngeen tey jii la alxames di benn fan ci weeru safar 1443 hijriya Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké joxe ndigal ñu war a bale dëkk bi ndigal loole nag mu jaarale ko ci Serigne Bassirou Mbacké Serigne Abdou Khadr ak Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Abdou Latif ñu yóbbul ko ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridine te mooy di Serigne Amdi Moustapha Fall moom Serigne Modou Mbenda Fall mbokki loolu moo sabab tey ji dëkk bi góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñoom ñëpp ñu maase génn kenn ku nekk ŋabb ak bale wala ratu wala lépp loo xam ne mën na fay jële mbalit ba ci taataay yi nga xam ne mi ngi ci biir Touba lu koy sëkk lu jëm ci peel suuf ak camion yi nga xam ne ñooy génne mbalit mi ak saret yi ak oto lu mu ci mën a doon taalib yi génne nañ ko mbokk yi kon loolu moo tax seen télévision Istikhama TV fas yéene ànd ak bokki taalib nga xam ne ñooy liggéey liggéey boobu fas ko yéene dëgtal bokki taalib yi ñu toll rek ñu ànd ak ñoom mën a génnee image yi ngir ñi nga xam ne taabaloon nañ seenu ñaq ci liggéey bi man di barkeeloo image yooyu ñi nga xam ne itam liggéey bi lëntoon na leen ñu mën leen koo leeralal bu bu ëllëgee bu sëriñ bi joxe ndigal kenn du leen ci jiitu liggéey bu jógee ci kër sëriñ Touba taalibe war na koy jëfe saa su nekk mbokk yi lii nag defuñu ko ngir lenn waaye waajale ko bis bu mag bii nu dëgmal muy bisu 18 safar te sëriñ bi waxoon ne xarajtu yow ma sabti zamil hasar li xidmatil muxtaari fii sahri safar dafa jóge Mbàkke Baari Jolof dëgmal noonu lislaam ngir liggéeyal lislaam ba mu ci amee ndam ba mu ñibbisee mu ne bis bii ma jógee mbakke Baari Jolof lu ma am ci la ma ko yàlla defale kon saa bu dellusee képp koo xam ne sambé suñu dëgg la nag ma ci sant suñu borom mbokk yi mbalee moomu nag sëriñ Cheikh Mbàkkam sëriñ Abdou Latif am ci taxawaay bu ma sëkk ndax saa bu sëñ bi joxee ndigal day fàtt ne sax Mbàkke la sant da ngay daal di gis mu jël ak laxasaay takk ci ndiggam doon dongo di liggéey Serigne Touba Xaadimu Rasuul am ci taxawaay bu ma sëkk ànd ko bokki taalibe ba keroog mbala di jeex delluwaat këram mbokk yi kon noo ngi jaajëfalaat baax Serigne Cheikh Mbacke Serigne Abdou Latif waaye kenn du soxna maam Issa Mbacke njiitu fédération Andou Café jooju nga xam ne moom it saa bu dikkee mu feggoog ñoom ci togg yi ci café yi ànd ak ñoom mbala mi ba jot jaajëf doo ko mbokk yi kon ñu ànd ak Istikhama TV toppal leen liggéey bi fan la toll ak Serigne Abdoul Bakhe Dia yaa

فتني mbokk yi topp kon tey jii la àjjuma alxames ñu ne ci mbalem dëkk bi nga xam ne mooy Touba kon dañuy bàyyi kaddu gi rek euh, Serigne Moustapha Sylla mu dikk ay kaddu yu ci sëñ ndigal sëñ bi. waaw sëñ moom day yàgg sa bopp dafa mel ni xat na lool waaye nag li tax sëñ bi nag mbooloo mi ak nuyoo bi ñi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi di ñëw a sëñ Touba Serigne Fall ca war a ñëw ci ñëwagul. war a génn ci génn guru loolu doo nga tax sëñ bi dagg nuyoo bii lu mu gàtt nag ay kàddum dañ ko daan dégg ci biir liggéey bi rawatina ci jotaay bii mu toog ci fii nga xam ne jël bi mag baa ngi nii li fees dell ak mbalit ndox maa ngi ci biir oto yi manqué léegi la ko doo xalaat kon koo xamante ni nii Serigne Touba nga yaakaar rawatina Cheikh Ibra Fall am oto bu mën a jël mbalit war nga ko yënde ngir jëmi Serigne Touba ñëw rawatina ak oto bii daa nañ jaayante ngir jëmmi Cheikh Ibra Fall bu kenn ku nekk benn murid bu nekk bu jaayante wu ngir jëmmi Cheikh Ibra jëlal Serigne Touba benn benn wayaasu ndox yóbbu ko foofu ba fa lay tuur ndoxam foosi ñu sotti ko fa ndox fa dina wàññeeku waaye nag loolu bëgg Serigne Touba la ku yàlla nar a baaxee yaay bàyyi la nga jàpp ñoo defal ko ak bëggam ca xam ne boo ko deful it salabaram dina ko defal ndax sëriñ bi moom du bëgg lu mënta am lu mu bëgg lu ne sëriñ Fall mi day wax ni a mooy day bàyyi la mu jàpp ñëw fekk ci Cheikh Rafal ci liggéey bii ko sëñ Tuubaa liggéeyloo mu jëlee ko mbalit mi wala mu jëlee ko ndox mi waaye la ñu bàyyi sëriñ bi ñaari kaddu yoo xamante ne at mu ne mu def ko ñuy ñaan ci daraje sëriñ Tuubaa Cheikh Rafal ak ndigal li saa borom dolli ko ak wér yokk fanam wi ak mboolem njabootu Cheikh ma Fall gi yàggal fi sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi ñu déglu sëriñ Fallou ñaari baat yu ne baaxee murid sëñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatoo nee na bokki jullit yi bokki taalibe yi di njabootu Serigne Touba di njabootu Cheikh Ibra Fall Serigne Falilou Fall jëwriñu sëñ Modou Aminta mooy ñu jotale kàddu yi nuyoo ak yi cant nee na du woote ndigalu sëriñ Tuubaa lim ñu jox jox ko murid yëpp te Cheikh Ibrahima Fall di jëwriñ ja muy sëriñ Modou Moustapha Fall muy sëriñ Modou am ni am ni Modou Mbenda maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ baa ngi bépp jullit rawatina bépp taalibe rawatina ñun waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ndigal li ñu sëriñ Tuubaa jox joxuñu ab coono de. joxuñu it ak ñàkk danoo jox ay njariñ jox ñu ak am jox ñu am koom jox ñu ak wér dimbali nu nag jaarale ko fii nga xam ne ku ci am ku ne da ngaa ñëw fii yaa xam da ngaa ñëw jëf da ngaa yaa xam da ngaa ñëw joxe yaa xam da wuy si waaye kaay leen jël daal moom la Serigne Touba wax mooy woote bii. kaay leen jël nee nag du ci may kenn dara du ci abal kenn dara du saraxe dara waaye lépp am na ci nag da koy jaay nag njëgg nag moo di jëf bëggu Serigne Touba gii suñu defee bëggu Serigne Touba gi suñu borom def suñu bëgg kon nañ leen fas yéene laxasaayu te wuy si ci ndigal li te xam ne Serigne am ni Modou Mbenda Fall maam Cheikh Ibrahima Fall di xalifa bi. woo na képp ku yaakaar Cheikh Ibra Fall ak foo ko mën a yaakaare yaa xam na nga ci réew mi wala nga bitim réew nan bàyyi luñ jàppoon te wuy si sëriñ bi bisa ngi ñëw boo xam ne kat lu ñu jàppoon ku ko lu mën a doon ñu ko bàyyi wuy ji sëriñ bi te su boobaa nag sëñ bi rek lañ fa yaakaar kon nan lay wuy si ci liggéey bii ñu ne woo lii moom waa Touba dong mënatu leen am xëy waxuma laa yoonu murit nag waaye ñu woote liggéey bu tol nii nga yaakaar ne bokkoo ci sa bitik tëj ko dem sa kër toog wala ñu romb la nga toog sa buntu kër ñu defe ne bokkoo ci loolu ak ñàkk a xam la Serigne Falilou Fall nee na ak ñàkk a xam la waaye liggéey bi Serigne Touba génnewu ci kenn Serigne Mountakha Mbacké mi ko déglee moo ci jiitu. rawatina nag keneen kon góor ak jigéen mag ak ndaw sëriñ baa ngi woo ñëpp ci njëriñ lii mënu jox ndax yéene na ko ñëpp nag bu sañul ñëpp jëriñu kon sëriñ baa ngi ñaan suñu borom mu yokk suñuy fan yokk suñu wér yokk xéewal yi gën ñoo mën loolu sëriñ bi bëgg lépp te ñàkk ko jëfe lool kon nag murit ndigal laa ngi nii ne ñëpp ñoo wuy si te bala ñu ko bàyyi nin ko tàmbalee tey nana àggee man ama jërëjëf sëñ bi waaye bu kenn bàyyi ci eggul liggéey bi moom bokk ci yomb na man nga am ak bale man nga am a man nga am parla man nga am oto wala nga am seret wala nga am ratu wala gopp wala sa mbuusum tàngal wala sa cornetub café wala sa kaasub café wala sa cornetub gerte bu ci waay xeeb dara ku deful dara daal moom la kenn mënut defal dara waaye ku ci def dara li bëgg sëñ bi dina la ko ci defal ne ku bëgg dara daal da def dara waaye sëñ bi moom mayewul ablewul kenn du ci may kenn dara waaye lu ci waay bëgg rek sëñ Tuubaa am na ko waaye li koy may nag mooy def bëggam gi rek kon sëñ baa ngi woo ñëpp ci ko yéene ñëpp kon nee jërë ngeen jëf nee tàmbali ko tey jii nag. ci bisimilah rahmaani rahim kon yàlla na egg ci alhamdulilah rabil aalamiina sëñ Mor Talla Kane Lamp Fall yenn waa Lamp Fall ak Istikhama nee mi ngi ñaan suñu borom fu turu Seex Ibra Fall bi yegg yal na fa seen liggéey bi egg te ànd ak ngërëmal sëñ Touba kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waaw. day mel ni réew mi ak bitim réew ñëpp a ko dégg ndax démb fédération Italie ñëw nañ indi seen liggéey kon Allemagne. Espagne Suisse sapo Amérique adduna monde bi ñëpp ku bëgg a bokk daal mën ngaa bokk sëñ am di ngi fi kenn ku nekk seetal kay sa jëwriñ nga jaaral sa liggéey ci moom bokk ci liggéey bi jërëjëf. jërë ngeen jëf mbokk yi Serigne Touba di Serigne Mountakha Mbacké joxe ndigalul ñu bale dëkk bi taabal ko ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Amdi Moustapha Fall jiite ko nuy ñaanal baax Serigne Cheikh Fall jëmb waaye xam ngeen ne daayira bii di xidmatul xadim di mbooloo mi takk ko ànd fas yéene liggéeyal Serigne Touba ak maam Ibrahima Fall desuñ ci gannaaw benn yoon jamono ju nekk ñu ngi ànd takk seeni laxasaay ngir liggéeyal Serigne Touba ci teewaayu Serigne Baara Mbacké moom Serigne Sohaybu ak Serigne Mbacké Madina waaye ak Soxna waaye ak soxna Nogoy Fall waaye itam ci teew ci seen jëwriñu nag jëwriñu liggéey bi di soxna Bintu Ndiaye Baye Fall mbokk yi ñu ngi ak suñu coordinateur Serigne Ndiaga Diong moom la ñuy bàyyee kaddu gi rek mu yëkkati ay kaddu jëmee ko ci liggéey bi. asalaamaaleykum mbooloo mi xam naa ñuy jéglu kaddu yi sax waaye sëñ Mortalla ñu ngi lay sant di la gërëm di xamal rek di xamal mbooloo mi yëpp rek ne daayira xidmatul xaddim xëy si nañ tey ni ko murid yëpp defee ci liggéey bi ànd ko ak sëriñ ñu ngi fii ci marché Ocass ànd ak sëriñ bi di xamal mbooloo mépp nag soxna bindu Ndiaye moo waroon a jël kàddu gi sax waaye ci kaddoom ay kàddoom laay waxee nee na mi ngi siyaare ñëpp di balu àq ñëpp di ñëpp di woo murit yëpp nag ci liggéey bi mu liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Fall ànd ko ak sëti Serigne Touba yi ak sëti Cheikh Fall yi tey it jiital ca Serigne Baara Mbacke euh, moom Serigne Soyibu ak Serigne Mbacke Madina waaye jiital sunu bàjjan Ndey Mbacke moom. Serigne Cheikh Awa Balla waaye ànd ko nag ak soxna Bindu Ndiaye mii nga xam ne moo woo ñëpp boot ñëpp yéen ñëpp jàmm ak soxna Nogay Fall mi nga xam ne mooy sunu bunt ci kër maam Seera Fall kon ñu ngi woo ñëpp te xam leen suba nag lañ bëgg jébbalee liggéey bi koy jébbalee nag fale ca éli ba ci Serigne Moussa Mbar jëwriñ ji kon soxna Bindu mi ngi woo ñëpp di xaar ñëpp suba ci fukki waxtu la soxla mbooloo mi ñu teew si foofu képp koo xam ne nag bokk nga ci mi ngi lay woo waaye ku ci bëgg a bokk ngi lay woo soxna Bintu daal nee na dafa bëgg a yóbbaale ñëpp dafa bëgg a dem te dafa bëgg yóbbaale ñëpp bëgg fee bàyyi kenn liggéey boobu gaasuwaal moo ko tax a jóg waaw bu jëm ci waar wi ñu ci doon laaj ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett ñaar ak juróom lañ doon laaj am na ñoo xam ne nag daan nañu ko gis ci weeru koor yi soxna Bintu du ko laaj te loola la jëm jébale woon na ko daaw jébale waat fas ko jébale ren kon mi ngi woo ñëpp suba ci àjjuma ji ba fukki waxtu jotee ca fee ca euh, rond-point wa ci Serigne Moussa Fall Mbar waaw soxna bi dina ngay sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp di séntu ñëpp nag <laughs> jërëjëf Serigne Ndiaga Diong jërëjëf soxna Bintu Ndiaye Baye Fall jërëjëf itam kilifa yooyu mu àndal liggéey bi kon mi ngoog bu Serigne Touba santaane Cheikh Ibrahima Fall waxoon ne ku yebal sa doom bu di di sa baay ku yebal soxna bu dikkee di sa borom kër ku yebal sa surga bu dikkee di sa euh, sab sang kon nag looloo waral mboolem yëpp teg ko àndandoo wuy si kon mbale maa ngi noonu ñi ñi nag dañoo bokk ci ñi nga xam dañuy yëngatu ci biir mbale mi waaye dajale nag seen hadiya ngir def ko gasoil bi nga xam ne mooy oto yi di génne mbalit mi dëkk bi loolee lañ fas yéene joxaat sëriñ bi suba incha allah ci 10 heures kon dig daje ci liggéey bi ak seen bokkum taalibe Mor Talla Ka Ndongal Touba ñi nga xam ne li def li ñuy def li muy rëy rëy li muy rëy rëy ñun rek lañ ko dimbalee ndax fii sunu maam tànki neen la fi daan def. yor aw semiñ yor aw semiñ. nun nag nun nag. ay daal lañ sol. ay daal lañu sol. war ci daaba yu mel ne. war ci daaba yu mel ne. kon ki def loolu. kon ki def loolu. faaw nu sant ko gërëm ko. faaw nu sant ko gërëm ko. muy sëñ Tuubaa mi nga xam ne lépp a ngi fi moom. ñu ngi ñaan suñu borom. tànk yi ngeen ñëwee ci liggéeyam sëriñ Tuubaa bii. nay seen yëkkatiku. nay seen yëkkatiku. faaw nag faaw nag. defaru defaru adduna. defarug adduna. ak defarug àllaaxira ak defarug àllaaxira amiin. lu fi waay indaale ci biir dëkk rek. rek. coono yi coono yi. naqar yi naqar yi. métit yi métit yi. wérad yi ñàkk yi na lépp dem na rek amiin. waaye njariñ yi nag. waaye njariñ yi nag. ak jàmm ji ak jàmm ji. ak ak wërsëg yi. na lépp ñëw rek na lépp àndante tabbi nag ci seen biir sëriñ bi nee mi ngi ñaan loolu ci darajay borom liggéey bii ci tur nag ki muy waxal di sëriñ Falilou Fall jawri ni sëriñ Modou Aminta Fall ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ak dundam waaye moom itam nag ci tur nag kilifaam yëpp ak tur seen kilifa nag di jawri ni Cheikh Ibrahima Fall jii Modou Mbenda yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi yàgg te wér sëñ Sadio sëñ bi loolu la doon wax bàyyi Cheikh Abdou sëriñ bi nee na wax doy bi ñaan ñaanal mbooloo mi alhamdulilah alhamdulilah